مسلم الاسلام نينا باتو الاسلام بوبو سي بوبو ميغي فيري الانقياد سوكو ديفي سيرين سي تاخاو تيم بريزيدان ان غوفرنمان بي تاخاو تيم بريزيدان بي اك غوفرنمان تاخاو تيم اسامبلي بي تاخاو تيم اسامبلي بي تاخاو تيم ييب ني تك كو على الصراط المستقيم ييب ني تك كو سي يونو يالا و موك وي تيو ووتي ngeureum لپ لو ني وارا جامات ني جار تي يون كو اون وون كو وارا جامات تي بان كو جامات جيكو Euh, ma doon la laaj nag ci sama ñaareelu laaj bi mu jógee ci formation boobu ba pare ndax man nga ñoo wax euh, xilaafaam quarante ans yi nga xamante ni euh, moom la yàlla dogal mu toog ci xilaafa Seydil Hadj Malick lim fi jota xam naa nag doo ci mën a doo mën a doo mën a indi lépp waaye nga xamal ñu rek ay faits saillants yoo xam ne ci xilaafaam euh, moom taxawee na ko ak itam ay recommandations yoo xam ne moom la dëkkoon di ko def jëmale ko ci jullit yi kon ñu bàyyi la kàddu gi. Euh, jërëjëf Hadj Mansour comme ni nga ko laajoon ci laaj bu njëkk ba rek yaakaar naa ne laaj bi itam laaj ba mu solo la parce que nit ki bu fekkee dafa am ci lu mu bokk. boo xam ci wàllu diine ak leneen lu mu mën a doon. nek fa ab dir bu joge fa dina rafet dina jaadu dina yell ñu jema def bilan ki lan la fi nekkee won ak lan la fi jëf eh, bu dee ci àla jabdu ba tabarakallahu ñepp xamna ni khilafam rafet na gannaaw bi nga xamé ni yag na mais tam metti na ñatt yoy dal rafet na yag na metti na dama ragal ne nag li mu yàgg ak li mu metti moo tax mu rafet. ndax yàlla bu la naree pay fay ko rafet il faut mu liggéey loolu. Alaaji Abdu bi mu jël xilaafa gi fekk wuyu juróom Seydi Hadji Malick jiitu ko ci liggéey ci liggéey bu rafet. ginnaaw Seydi Hadji Malick xilaafa gi nekk ci loxo sëñ Babacar Sy pendant trente cinq ans. Mhm. mu liggéey ci liggéey bu rafet rafet. sa turandoo Alaaji Mansour Euh, jotul toog wala bu toogee itam yàggul. Mhm. parce que gannaaw bi nga xam ne Seydi Hadji Malick euh, euh, sëñ Babacar Sy génn na àdduna altine. Mhm. talaata nañ ci teg àllarba alxamis àjjuma moom mu wujj boroomam. Mhm. ci la nag El Hadj Abdou toogee ci xilaafa gi. di atum mille neuf cent cinquante sept. gannaaw bi nga xam ne sëñ Babacar Sy toog na mille neuf cent vingt deux ba mille neuf cent cinquante sept muy trente cinq ans sëñ Abdou jël mille neuf cinquante sept ba mille neuf cent quatre vingt dix sept muy quarante ans de xilaafa. nekk xilaafa gu rafet lool. ci wàllu liggéey. Mhm. ak ci wàllu taxawin. Mhm. ak ci wàllu njàngale. bokk na ci liggéeyam mooy yeesal zawiya Seydi Hadji Malick di mhm. nekk Tiwaawoon. parce que zawiya ba nekkul woon nii mu mel nii. sëñ Abdou moo ko liggéey gannaaw bi nga jëlee xilaafa yi yeesal ko rafetal ko. bokk na ci liggéeyam tey zawiya bu Dakar bi itam. nekk Dakar Plateau. ci xilaafaam la yàlla def ñu liggéey ka ci anam bii mu nekk tey. Mhm. donte moom si wàll bopp sax liggéeyu ko. Mhm. waaye nag ki liggéey ci ndigalam la ko liggéey ndax su ko jox woon ndigal du ko liggéey te bu ko jox bu ko liggéeyul woon itam moom dina liggéey. Mhm. bu teewoon bi. dëgg muy ku yàlla baax di El Hadj Jili Mbaye. El Hadj Jili yàlla fayal nu ko. amiin yàlla fayal mu ñëw ci El Hadj bi nga liggéey na li liggéey jàkka yu bare bare ñaanoon ko ndigal. pour liggéey zawiya bu Dakar bii. El Hadj Abdou xamal ni ko zawiya bi dafa nekk ci loxo mhm. muy ci loxo alaaji Cerno Seydou Nooru mhm. demal ca moom moo la mën a jox ndigal mu ñëw ca Cerno ci alaaji Cerno Seydou Nooru Cerno Seydou Nooru jox ko ci ndigal alaaji ji la mbay ci baaxu yàlla bu yàlla yankeewal ka mu mën a liggéey zawiya bi ci nii mu ko liggéeyee mhm. ci gannaaw ndigalu Cerno Seydou Nooru ak ndigalu alaaji Abdu alaaji itam liggéey zawiya bu ndar bi nga xam ne defe naa mooy la zawiya mère moom la Seydi moom la Seydi Maalik njëkk njëkk njëkk njëkk moo jiitu bu Dakar moo jiitu bu bu Tiwaawan. Mm-hmm. yabal na fa yabaloon na fa ci jamono sëñ Babacar Sy ak ci la Senghor ñu ñu defaraat ko. Mm-hmm. waaye bi El Hadj Abdou ñëwee itam defaraat na ko. Mm-hmm. kon d' abord premier rôle am moom El lépp li xam ne bàyyam bàyyi woon na ko mu fexe ba euh, taaral ko. yeesal ko mais itam dëgëral ko. allah te mu nekk seede yoo xam ne dèjà à bas âge Seydi Hadji na ko ci moom. mu nekk tout tànk benn bis muy jàpp El Hadj Abdou daw romb ko. mu ne kooku la ñu ne ko Abdoulaye mu ne kii day sama xiboon bii day lépp loo xam ne liggéey naa ko ci diine ji. Mhm. ak ci tarixa bi. Mhm. ak ci mbokk gi. Mhm. su màggee dina ko mottali. incha allah yàlla def na sutura itam bi El Hadj ñëwee naka way juróom mbébite woon ci moom. mottali na ko. noonu la ko defee. Euh, Fass jak saaw wala jag moo tax jumaa boo demee seen mbaar xam ni way si daaj Malick maam maam Matar Penda si fa la nekkoon. wala jaddu def na fa jàkka. ay numaadi. Alaaji Abdou def na jàkk mhm. ak yeneen dëkk te liggéeyam yamul teg ci wàllu jàkk mhm. parce que itam ci la bokk mhm. parce que papaam liggéey na ci way juróom liggéey ci liggéey bi am solo mais ba mu tam bi bu ñëwee liggéey jooy bu féddali ko defaraat ko taaral ko yaatal ko ak taxawu askan yi bépp fànn nag ci wàllu ñuy feebar mu dimbali leen ci wàllu ñu war a faju mu euh, ta amuñu lu ñu jënd ordonnance mu euh, nu mu tuddati dimbali leen. jënd mm. leen seen ordonnance. wàllu hospitalisation mu fay les fay euh, mu fay les frais d'hospitalisation. Mm. wàllu réseau routier. mooy dëkk yoo xam ne demoon fa jafe na mu fexe ba am. yoonu baax mhm. ci wàllu euh, approvisionnement en eau potable mooy dëkk yoo xam ne amuñu woon teen wala amuñu woon forage wala amuñu woon robinet mhm. ana jam di dimbali leen taxaw leen mais itam doon ci ñaax gouvernement bi dañu dimbali askan bi taxaw leen mhm. dëkk yoo xam ne amuñu woon hôpital ak yu ne demee centre de santé mu dimbali taxaw ci leen kéemtal ay kàttanam kooku tam ba tey liggéey la bokk bokk na ci Alaaji liggéey tam ay taalif ay yu bari bari yu am solo ak waaye ak wàllu xutba ak ay wàllu njàngale njàngale ak wàllu dénkaane tam taxaw doomu adama yi ci walu ngenté yi ci mm. walu tak yi ci walu dëcc ci walu xew-xew bu mëna nek mm. ci walu acc makka mm. di dimbali doomu adama yi mëna dem jotal seen farata ta parce que bu jotté dimbali doomu adama yi mëna am lu mëna def seen sunna ak yu nu demee mm-hmm. booy xool daal ci gattal ala jabdu euh, diru khilafam mm-hmm. ci loolu la nek mm-hmm. mos ci jog suba ngon ngoon deg bëccëg ligéel diiné ji ligéel tarax bi waaye tam wutu bayam mais seigne bi bëggon na nga ñëwal ñu tuti ci benn aspect. Mhm. mooy taxawaayu euh, Serigne Abdou ci euh, réew mi ci Sénégal. Mhm. ndax euh, seetlu nañu ne saa yu jamono masaano masaana yëngu ba réew mi nekk ay xat-xat daan na ci am taxawaay bu mu ci taxaw. Euh, soit mu woote jullit yëpp daje mu mu mu joxe ay recommandation pour ñu génn ci xat-xat yi soit bu fekkente ni maa ngi fàttaliku am na jamono yoo xam ni gouvernement bi daf daf fi daan am diggante. ak syndicat yi jaamarloo jaamarloo parti politique ak syndicat yi ak parti politique yi bu masaan bu kàddoo masaan jóg rek yàlla dafay def lépp. da dal te loolu sax xam naa dinañ ci dellusiwaat ci bi mu génnee bi mu génnee àdduna wante gis nañu sax ne même bi mu génnee àdduna bu réew mi demee ba tollu ci ay jafe-jafe xel yëpp ci moom lay dellu. Mhm. ba léeg-léeg sax dañuy jël ay kasam di ko teg. Mhm. pour fàttaliwaat. Mhm. nit ñi pour delloosiwaat nit ñi ci ay recommandations yu mu daan def. est-ce que mën nga ñu ñëwal ci aspect boobu. Euh, jërëjëf Hadj Mansour euh, question bu am solo la.

ci jamonoy peste ba. Mhm. peste bi lëmbee réew mi lool euh, ñu am ay mesures sanitaires yu ñu arrêté woon. Mhm. comme quoi que dana war a ñàkk nit ñi pour mos leen ci feebarum peste mi. Mhm. population bu mel ne population Gendar ñu ñoom xëy na dañ leen rey ba nu jeex waaye allah kulli al jamais au plus grand jamais bu nu dem ñuy vacciné wu. yàlla def ci yàlla def ni Seydi Hadji Malick ci jamonoom. ndox ci ay tànku jàmm. naxanteeg ñoom. waar leen dem sax ba jiitu leen ca fan war a ñàkke ñakku dem wan leen yëkkati loxam ci gannaaw ci noonu soo a ñakku mm-hmm. kon mu nekkoon taxawaay bu rafet en son temps mm-hmm. beneen bi itam toujours ci Seydi Hadji ci taxawaayam mm-hmm. parce que ba damay ñu ci El Hadji Abdou comme ni ma la ko biir plateau daanaka léegi yëpp fa doon dëkkoon mais dem nañ ba xajatuñ fa parce que askan day day màgg bi ñu demee ba xajatuñ fa ci noonu aménagé Médina muy benn site sorewul pour que population bi ñenn ci population bi war a ba tëdd ca naaj waaye dafa ko ci sutura mhm. ñu déggal ko Médina ville nouvelle est la naroon tudd da ko tubaab projet boobu la ñu ko tëral mais Seydi Malick moo ci dox ca wax man tuddee ko Médinatul Rasul muy Médina bi xam ni fa la yonente bi wa sallam nu mu tuddati tëdd mhm. te loolu lépp a wane cofeelu Sidaaj Malick ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu nekk taxawaay boo xam ni Sidaaj Malick doon na ko taxaw en son temps mhm. bi Sidaaj Malick bi El Hadj Abdou ñëwee itam taxawaay bu way juróom taxawoon rek mhm. mooy doonam taxawaay boobu dong doon taxawee muy taxaw askan wi comme ni nga ko waxee bu daan jëngatu muy diggante syndicat ak euh, gouverne euh, ak euh, état bi wala mu nekk gouvernement ak parti d'opposition yi wala mu nekk comme ni mu amee woon en 1989 conflit yoo xam diggante Sénégal ak Mauritanie mu jóg taxaw wax ba lépp defaru lépp ak yoon ñëpp dégal ko yoon euh, jàmm dellusiwaat ñëpp mën dund ci jàmm yaakaar naan kilifa diine loolu lañ koy doyee mhm. euh, am na benn xasiti Siraj Malik maa ngi koy jàng léegi rek démb ci laa yendu muy xasiti bu mu bindoon parce que na woon ko góor gi tax góor gi moor ko jësi mhm. bokk na ci dénkaane yam ko doon dénkaane mhm. naan que tant que tu es vivant la science des savants la euh, la médecine des médecins

moo xam ci famille la. moo xam ci gox la. ak lu mu mën a doon. ñoo ngi may nettali temps yi ci gannaaw rek. benn dëkk ci Sénégal boo xam ne seen imam moo amoon problème ak waa dëkk ba. waaw ndax waa dëkk ba dana ko doon tuumaal. la jab di dégg mbir ma. bi muy dem tàggawul waxul waa dëkk bi itam maa ngi ñëw. sol dàllam dugg otom dem. bi mu ñëw ba yegsi li naan kenn taxumaa jóg daluma kër kenn fekk leen yéen ñëpp jàkka ja. bi ñuy fekk ji ñëpp toog mu jël kàddu nuyoonte waa jàkka ja euh, sànnante ak ñoom kàddu mm-hmm. leen dégg dong nga ma tax a jóg mooy dégg naa da ngeen di tuumaal seen mm-hmm. ba na nga wutoo sax leen topp ci gannaawam mm-hmm. ma leen di laaj lii ngeen koy tuumaal kenn ci yéen moo ci mën indi firnde lii lii ngeen koy tuumaal lu am la ñëpp ni tek mu benn mu ñaareel ba ana kan ci yéen moo mën a firnde lii ngeen di tuumaal imam amul ci yéen koo xam ne def na lu ko gën a garaaw te toogaale ko noppi ko yàlla suturaal ko. ñëpp noppi mu ne kon suturaal na seen imam même boo ko defoon suturaal leen ko parce que diine islam aussi diine sutura la. waaw loo xam ne amoo ci benn firnde ak njottam yu jaaw dong nga ci am ba tax nga tuumaal sa imam ba doo doo jullit ci gannaaw leen loolu rafetul doo jaaduwul. dëgg la yàlla daf ñu noddu mu ne imam bismillah imam ba dem ca kanam yàlla daf mu def sutura. yu ni mel ci la giiru xilaafam ci yu la nekkoon mhm. ba fu mu déggee histoire fu mu ak lu mu a doon dina mhm. ca dox dina ca wax dina ca def te ma def te na sutura ba lépp awaan comme ni waxee même bi fi jógee mhm. bu réew mi jaxasoo itam dañuy delloo si waat band ya étudiants yi bi ñu fi amee problème moo ci taxaw moo ci wax ba étudiants yi dina ko war dellu ci amphithéâtre yi jàngiwaat grève bu mu mën a doon. Mhm. rawatina grève bu Cité Lek en mille neuf cent quatre-vingt-douze doon grève bu métti woon lool. moo très bien moo leen woo woon ca Jaksaaw def ak ñoom dama tuddati eh, huis clos waxtaan ak ñoom ñu dellu. parce que réew moo toog ak xam ne toog na ay fan amuñu courant. métti mhm. na. Mhm. tey boobu grève bi métti na lool. yàlla def ci ba mu ñëwee itam yàlla defal na ko ci sutura. Mhm. ak yeneen ak yeneen Ablaye maître Ablaye Wade en son temps. bu daan jàppante ak Abdou Diouf ba jàppante bi métti lool. parce que moo fi nekkoon le leader de l' opposition. ba Abdou bu bu bu yàlla def ci sutura. maître euh, Mbaye Mbaye Seye. Euh, maître Babacar Seye. bi ñu ko fi assassiné en situation yooyu doy na waar la. mais addoo itam yàlla daf la ci sutura te mhm. gis nga même Kéba Mbaye bi muy démissionné mi nga naan démissionné bi maa ngi ciy ñaar mhm. kenn ki mooy sama wayjuru jigéen keneen ma def dara te loolu da waxtaan a ñoom mais bi nag circonstance oblige mhm. kon fële lay alhamdu ñoo ngi sant yàlla bi nga xamee yàlla boole nu góor gu mel noonu euh, ba fu jamono daan toll même bu dara daawul woon xew parce que am na jamono dara xewul ci réew mi lu mel na woote zawiya bi en 1992. Mhm. woote zawiya bi en 1996. Mhm. waxtaan yëpp mhm. jamono yooyu dara xewul woon. mais nag fa zakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. fàttali dafa baax ci parce que nit ñi nit ñi dem ba dama yàlla baal jamono dina leen yóbbu ba. xëy na nanu war a seen diine dootuñu ko taxawee wala nanu waroon def dootuñu ko def su boobaa nag kilifa yi mel na moom lool ñëw pour dellu siwaat askan wi dëgg la waaw yaakaar naa daal ci gàttal daal bu ñu daal euh, riche lool mm-hmm. yàgg na lool bare na njàng lool waaye dëgg lépp xaj fi comme nañ koy waxee rek li duuf ci nag lépp xaju ci cin dëgg la ñu doy lool lool dëgg la jërëjëf jàmm jërëjëf ah xanaa kon rek dañuy ñëw léegi nag ci maanaam génn àdduna mu nekk lu nga xam ne euh, lu doy waar la ci réew mi ndax bés boobu eh, am na benn journaliste bu doon wax naan même la nature est en man maa ngi fàttaliku bés boobu bi may dem Tivaouane bëccëgu ndara kam mhm. dafa niis ba doo gis à quinze dama taal faar ba bi may egg Tivaouane mhm. maa ngi koy fàttaliku mhm. eh, mu nekkoon bés bu doy waar boo xam ne euh, ñëpp yëgoon nañu ne euh, bu Sénégal doon jëmm dañuy wax ni tey Sénégal dafa nekk orphelin mm-hmm. te loolu ba léegi mi ngi topp Sénégal euh, ndax mën nga ñu ñëw rek brièvement ci événement boobu ndax ñu mën ci fàttali ko tuuti. jërëjëf Hadj Mansour génn El Hadj Abdou génn àdduna El Hadj lu tiis la lu metti woon lool Sénégal gi yëpp yëg ko comme ni nga ko waxee même nature bi sax yëg na ko te wane na ko itam parce que bis boobu dafa ko waxee nii sonn na lool daloon na lool itam boo xooloo seetlu rek même boo xamul lan la di nga yëg ni bis bi am na loo xew. lu xew waaw. Mansour am na loo xam ne nit bu amee ñàkk ko. ku dul nit sax bu amee ñàkk ko dina ko yëg dëgg moo tax de génn àdduna alaaj bi ñëpp ko yëg nature na ko doomu aadama yëg na ba ci bàyyi may sax yëg na ko dëgg la ndax nag mm, wuutu gu woon wuutu woon yàlla ci jaamam ñi dëgg taxaw leen ci bépp fànn na mhm. taxaw leen ci bépp bépp bépp fànn na mhm. Mansour am na xéewal yoo xam ni boo ko amee amaana mën nga xam mais des fois il faut que ñàkk ko pour nga xam xam dëgg dëgg la nga amoon mhm. mooy la jot nit ñi xamal na ko en son temps. Mhm. waaye nag ba mu wanee gannaaw itam gën nañ koo xam. Mhm. ndax la mu doon taxawee ci jamonoom. Mhm. lu bare bare ba mu wanee gannaaw ba mu wanee gannaaw sooxe na. dëgg la wallaay dëgg la. réew mi da toll des fois situation yi day waar. doo dégg ni déet doo dégg ni waaw. wallaay te moom lu ma sa xew. laata muy xew sax dina wax. wala bu xewee ca saasa dina wax dina jaf. ba xel yi mën a dellu si waat. dëgg la ku mel noonu nag boo ko ñàkkee Mansour foo jaar jooy ko. dëgg la moo tax ñëpp jooy la. dëgg la yàlla def na bi muy génn bi El Hadj Abdou génn àdduna fenn fekk ko fi moo doon président de la république mu ngi koy fekkoon Libreville au Gabon. Mm-hmm. bi mu ñëwee làkk ni ko dan nga gisee génn àdduna a Hadj Abdou. Mm-hmm. mu ni ñàkk naa ñàkk naa waxuma la man waaye Sénégal si wàllu boppam ñàkk na. Mm-hmm. tout le monde est en état de waaw ndax Alaaji Abdou nekk na kilifa ma daan dem bay jaxasoo man man Abdou Diouf en tant que mm-hmm. moom laa na ko ci mémoire yi moom wax mu teg ko ci yoon mm-hmm. sëñ Mansour mi xam ne moo wuut mm-hmm. Alaaji Abdou ci xilaafa gi jooy na ko moom woy bi nga xam ne Alaaji génn na àdduna na mu tuddee yi altine de astafurlah dimanche le lendemain muy lundi mu bind xaside ci moom toog noppal talaata ni lim def ci alaj baax na waaye doyul mercredi mi yow wa doorat benn xasida ci moom mhm. xasida yooyu ba ma demee di ko ziyaare sama loxo la ma teg ni ko toppatoo ma ni ma ni ma toppatoo ko man traduire ko ne moom sëñ Mansour bi nga xam ne moom moo wuti euh, alaj abdu ci xilaafa gi mhm. jooy na ko cardinal mhm. na banaan sax Abdou est un don de Dieu nee na Abdou ngëneelu yàlla la bu nu yàlla baaxoon Sénégal waaw moom cardinal Hyacinthe Thiandoum mhm. ndax fonk gu mu fonkoon Alaaji Abdu ak xam nga mu xamoon Alaaji Abdu mhm. ci wilaayam ak ci bépp fan mhm. ak yeneen kilifa ci réew mi muy grand sëriñ de Dakar euh, Alaaji Bassirou Diagne à l'époque muy le leader de l'opposition maître Abdoul Wade Abdoulaye Wade bi nga xam ne moo nekkoon leader de l'opposition ak képp nga ci réew mi Chérif Abdoul Aziz Aïdara bi nekkoon mu tudd ci Thiès Thierno ak bépp kilifa yi ci réew mi amul kenn koo xam ni nekk ci réew mi fekkee génn euh, fekkee génn àdduna alaaji abdou lu dul jël nga sa film bind ci moom wala nga wax ci moom nit ñi dégg la wala nga jooy ta soxal wala nga toog mu ngi wéet nga wéetal nga ñaanal te itam noonu rek la mënoon demee waaw noonu rek la mënoon demee mais li ci ëpp solo gannaaw bi nga xam ne alaaji abdou nag génn na àdduna tey itam génn na àdduna waxin la mi ngi fi waaw àdduna ay waxin la mi ngi fi te képp ku yàlla may cër di nga xam ne mi ngi fi mm-hmm. mos fee jóg mom sama ben xarit yena bokku tour ñu koy wax Mansour Mansour gay mi mm-hmm. ngi doon liggéey ministère de euh enseignant la won bu mm-hmm. may netali ni ma ci jamono Tiwaawan bi Tiwaawan yëngatu dans les années cinquante mm-hmm. papa am talibé Hadji Mansour la won jogé saloum doon dem Tiwaawan ñew Tiwaawan ñu ne ko El Mansour da nga ci Thiès mu jatt ci Thiès ñu ñu El Hadji Mansour ni si jaaxle naa mu ne ko na la mu ne ko kat dégg na teewoon na nga tàng jër yow nga toog Cees mu ne ko diw mun ne ko mu ne ko teewoon am na borom te borom mën na boppam teewoon am na borom te borom am mën na boppam mu Seydi Hadji Malick te képp ku fa def naka sulu noonu Seydi Hadji Malick dina rëq sa dégg. est que kon Seydi Hadji Malick jug fi. waaye itam alaaji Abdou mi nga xam ne moo fi wutu jóg fi gannaaw bi nga xam ne ay magam itam ñi ñoo ko wuutu woon laata muy toog ci xilaafa gi na nu a nekk nu mën a nekk a wax ak lu a def donte sax ñoo fu mën a nekk laa wax seen njaboot gis nañ leen te yow dafa am na loo ci xam mos nañ waxtaan am na loo ma mos a ma mos wax ni ko dundee noonu laa ko dundee keneen noonu la ko dundee waaw kon ñoo ngi sant yàlla bi nga xamante yàlla baaxee na ne kilifa yi mel noonu mais nag li ma doon wax mooy li ëpp solo mooy ñun est-ce que ñun ñoo ngi leen bàyyi xel gannaaw bi nga xam ne ñoom ñoo ngi bàyyi xel est-ce que ñun ñoo ngi leen bàyyi xel ci lu ñuy wax ci lu ñuy def ak fu nu mën a nekk xel am na nu nu war a mën a mel ñu ngi sauvegarder seen dono waaw seen seen njàngale parce que ñun euh, euh, kilifa diine mm-hmm. njàngaleem mi ngi feeñ ci taalibeem lu mm-hmm. tax Cheikh Saad bu ba muy ba muy ba muy seede si daaj ma lu mu ko wax la pédagogie dont tu as fait montre est la meilleure sa njàngale gën ci njàngale yi lu tax parce que la nga jàngale ña ngi ko jàngal ñoo koy jëfee ba sëriñ bi lu mu mën a mën lu mu xarañ xarañ xarañ lu mu am am xam-xam lu mu am am wilaya bu fekkee njàngaleem feeñul ci ay taalibeem ma tutuko dëgg la waaw alaaj abdu nag njàngaleem feeñ na ci ay taalibeem mais gëna bi mu démé itam warul tax ñu japp ne alaaj abdu dem na demul mi ngi fi hmm. ta même bu demoon définitivement mu wóon dem na itam warul téré ñuy fatalu kay ay tek fa suñu tak parce que lim nuy sant ak suñu nuy jaarloo suñu du ñariñam mom suñu ñariñ la ñun suñu ci ñaaré daan ci am téranga aduna daan ci am téranga allah te bu ndaje suñu borom suñu borom gërëm nu hmm. te gërëm yàlla na dara dàqu ko kon nag nanu bàyyi waxtu xel bu baax a xam ne am na kilifa gu baax am kilifa gu mat kilifa baax na lool waaye nag dara gënul yow sa wàllu bopp nga jéem a fexe ba mat taalibe dëgg la dëgg la waaw dëgg la kon génn Alaaji Abdou encore une fois métti na mhm. tiis na euh, kilifa yi mu dundal loon seede nañ ci ma ay seede yu rafet rafet loolu lépp di wane wilaaya ak dimension Cheikh Alaaji Abdoul Aziz baax mais encore une fois li ci ëpp solo mooy ñun njaboot gi nan bàyyi waxtu xel suñu bopp mhm. waaw fonk la mu daan fonk def la ma daan def te daan ko defloo hmm. dara jiitu ci mooy fonk waxtu yu juróom yow taalibi tijaan hmm. waxtu julli bu jotee lépp loo doon bàyyi ko demal nga joxe sa farata comme hmm. moom na mu ko daan defe comme booy juróom ko daan defe wax naa la ko sànq ci sëñ Hadi Touré seede bu defoon sëñ Hadi Mari kon waxtu julli jotee lépp loo doon def bàyyi ko te yaakaar naa ne booy jël werd bokk na ci li nga charte tarixa bi mooy waxtu jite waxtu juróom bàyyi ko xel te dee ko jullee ca mbooloo bokk na ci ba fonk wasifa subaak ngoon yow taalibi tijaan xam ne bokk ñëpp si daaj maali comme moom na mu ko daan defee mm-hmm. ba bu yaramam daan diis mënul dem sax dafa daan ñu indil ko wala ñu indi malaan ba ci buntu néegam toog mu ànd ak ñoom di wasifa ak ñoom mm-hmm. fonk wasifa subaak ngoon mais itam fonk xadaratul jumaat mm-hmm. Mansour ñu bari xamuñu ko waaye xadaratul jumaat taalibi tijaan yenn marta yi ci xadaratul jumaat fonk xadaratul jumaat dañ koy amee waaye di ngay bay du ciegal da ngay bay ma do juroomi minute nga ñew tok def ni ya ci nek da ngay nax sa bop ndax mhm. da ngay fexé ba bu ñuy laal malade nang ko fekk and mhm. ak ñom avec présence d'esprit ta boy dem bu la lenn lu yóbbu loolu yàlla mhm. tok fa da nga fa wara togi nek fa nang fa wara nek ñu def xadarul jumaat julli timis nga togaat fekk wat wasifa bi parce que xadarul jumaat ni mu toog ni mu nek farata jaw ba nga dem fekk ko bu do julle te sa paratam tam wasifa top nan la nek farata jaw way ñu xadarul jumaat ñuy 1000 personnes ñu bare 50 900 yep dem mu da 100 wala 50 lool rafatul te itam jaaduwul te itam kenn waxu ci nag waaye nag jaaduwul waaw kon nga fonk sa waxtu juróom fonk xadara euh, wasifa suba ngoon fonk xadara jumaan mais itam fonk say mbokk comme naka la daan def fonkan ay mbokkam lool loolu leen taxaw lool féete leen fu bare bare bare te itam kenn kenn ku nekk war nga ci war nga ci roy war nga ci jànge ba bala yàlla dénk ak tuut ngay gestu say mbokk leen taxaw am na ci solo lool macha allah moom ci wàllu boppam daaw na ko nee na bu leen yaakaar ni yàlla ci julli yu bëri ak woor yu bëri rek dana koy amee de mm-hmm. parce que ak wuutu ko ci jaamam yi wuutu ko ci jaamam yi mm-hmm. daawoon na moom ala jab mm-hmm. ni kii wut junni yàlla na kii joxe junni yàlla na fi jiitu ba ki wut junni bu ñëwee du fi yàgg ah, kii joxe junni yàlla na fi jiitu ba kii wut junni bu ñëwee rek du fi yàgg dégg naa benn bés am na bàyyi ni waa ñëw ci moom ci sàkkun dimbal uh-huh. wala jab teg ko ci loxoom te mu ko jox enveloppe la. ñu nekk nag ma xam ne kii enveloppe bu dun la ko joxe ñu ne ko waa góor gi yow mandikat la. mu ne gis mandikat man ma mandikat loxo yàlla laa gis. <laughs> waaw est am solo la est ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. est-ce que euh, bi am na solo lool. waaye comme ma la ko waxee rek kenn mënu ko jeexal kenn mënu ko jeexal géej la ñu doyloo ci loolu. waaw ñu doyloo ci loolu xanaa rek ñu ñu ñu ñu waxtaan tuuti rek ci ay publication mm-hmm. maanaam li mu li mu jot a taarif mm-hmm. Euh, ay œuvre daal yoo xam ne euh, ci wàllu xam-xamam euh, bind na ko bàyyi ko ginnaaw pour jaam yi man ci mën ko jëriñoo pour pour jullit yi mën ko jëriñoo. Mansour loolu géej la. Mm-hmm. goo xam ne duma ci dugg. Mm-hmm. damay bañ lab. Mm-hmm. géej la ndax bari na. bari na waaye nag nañ sant yàlla. bi nga xamee yàlla may nañu ay borom xam-xam. yu mel ne El Hadj Rawane Mbaye liggéey ci liggéey bu am solo. Mm-hmm. en 2002 mu dajale mboolam bind yi nga xam ne El Hadj Abdou bindoon na ko. Mm-hmm. édité ko en deux tomes mu nekk en arabe. Mm-hmm. baaxee ko jaamu yàlla yi. ñu tegaat ci ay at mu dem fexe ba traduire ko. muy l' ensemble des écrits de Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh moom. professeur Wane Mbaye. traduire ko def ko une publication bilingue en français et en arabe. mu nekk en trois volumes. te volume bu ci nekk daanaka nekk na dans les huit cent pages. macha allah te itam boo ko yëree. Mhm. di nga gis ni El Hadj Abdou bàyyi woon dara. bind na ci diine ci. Mhm. ak fan na bu mën a doon. Mhm. bind na ci tarixa bi ak fànn bu mën a doon. bind na ci société bi ak fànn bu mën a doon mais itam bind na ci ay sëriñam ak ay kilifaam. way leen tagg leen delloo leen njukkal. macha allah waaw. tabaarakallah ci gàttal daal pour bañ a lap ci géej gi. yaakaar naa noonu doy loo loolu ci ay publication jërëjëf wala ay bindum Cheikh. <coughs> Euh, jërëjëf <coughs> jërëjëf ci ah xanaa comme ñu ngi waaj egsi ci euh, fin wu entretien bi. Mm-hmm. Euh, ñu bàyyi la rek nga présenté. Mm-hmm. Euh, ci sa wàllu recherche. Mm-hmm. sànq bi ma lay présenté bi ñuy tàmbali dama wax ni chercheur nga wante itam écrivain nga. am na ay publication yoo jot a def ci Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh ñu bàyyi la rek nga présenté ko ah ngir nit ñi mën a xam ne ñun gan gi ñu am tey euh, nekkul rek koo xam dañ ko jël nii au hasard mais dañ ko jël parce que xam nañu exactement xam nañu bokk lu bëri ci euh, coono bi mu daj ci gëstu dundu sëñ abdu ba bind ci téere yu mel ni kon sëñ bi bismillah euh, jërëjëf Mansour Euh, euh, Cheikh Elhadji Hadj Abdou Aziz Dabakh comme kilifa yi ko jiitu damay wax ni la len waroon ci sen jamono def nañ ko waye nak defuñu lepp parce que tam ñu def lepp waaw ah, sen jamono la laajoon ak fa na tolloon ak lañu mënon def nañ ko mais yalla baax leen tam amna ñu njabot te njabot gi nak aussi war nañ mëna a sen kilifa ba euh, euh contribuer ci seen liggéey. gën ko taaral gën ko yaatal mais itam euh, gën ko diffuser mooy gën ko tasaare. ba nit ñi mën ci jot. yàlla def na ñoom seen bind bind arab la woon. arab lañ daan bind muy moom muy sëñ Babacar Si muy Seydi Hadji Malick ak mboolem kilifa am ci Sénégal la. seen ci ëpp arab woon. tey nag dëgg dëgg dëgg arab Sénégal ñu bare bare nag jàngul ko nag. li fi gën a siiw nag li gën a siiw nag li gën a bare. Hmm. mooy. nasaraan di mm. français mm. yàlla def na bima ma génnee université mm. jang ba paré yalla xir ma suma yow rek kër El lay dem ba ben bik ma gis ma gis Pape Makhtar Kébé ni ko daal bëgg bind téré ci Seydi malik parce que amna luma lu sama yaram gëna bi nga xamé ni eh, ma ngi fàttaliku sama ñaari wayjur yalla yalla yàlla len te jëgal len yalla xare leen aljana yegg len ci barsàq Cheikh Tidiane cheikh bi jay sidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy atum 1000 1991 boobu maa ngi jàng nekk université sama frère bu ñuy wax Aziz Thiam génn àdduna ca Gambie yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko ca dëj ba sama papa woo ay seede am lu am lu mu doon sàkku ci ñun muy man ak sama ñaari frère kenn ku ne Abdou Gissé Thiam kenn ku ne Demba Gissé mu ni leen ñii de maa jur ci farata yàlla ak sunnaas Muhammad soxlaalu ma leen dara. leen dong laa leen di ñaan muy tarixa bii nga xam ne ci laa leen jur muy tarixa Cheikh Tidiane nañu fexe ba wun ma fi bàyyil nañu fexe ba bul mag lu nu mën a def daal nañu fexe ba buñ fi bàyyi tarixa bu ko wan mukk ginnaaw nañu ci sóobu ci tarixa bi lépp luñ ci mën lu baax mhm. nañ ko def waaye buñ ko mën buñ ko mas a mën a wan ginnaaw keroog man tontuwuma sama rakk moo tontu ñax démb gisee. moo ne ko papa mu ne ko mu ne bii nga ñuy woowee ñun gis nañ ci loo xam ne yow sa wàll bopp boo génnoon sax bàyyi ko ñun duñ ko tontuwul dañ ko tontu loo. parce que tontu bu mel noonu ci xale nga tontu ko say ah. waajur moom c'était pas évident. Ah. yàlla def bi ma génnee université jàng ba pare droit laa jàng. donc ça n'a rien à voir avec. Mm-hmm. ay yu noonu. mais nag bi ma génnee jàng ba pare am sama diplôme. daal mhm. dafa su ma yow rek ma ko daal a jot topp. te benn bis ma ni Pape mhm. ma ci France waaw mun baax na naa la ma sa boole góor gi. Mhm. su ma yeewal ma demee toog ba ngoon ma ñibbi benn toog ñu indi añam yeeg avance commencé añam mun ma kaay wuyu toog ci fële ni ma toogee ma toog nii sukk ci wetam mun ma lu ma ne ko bind téere Seydi Hadji Malick ma ci français wala ci arabe ma ne ko ci français mun ma tàllalal sa loxo ma tàllal sama loxo bu ñaanal ma dem mes contributions à l'étude des rapports entre El Hadj et l'administration coloniale ça a été ma première publication. bu suis dit, il y a une publication aperçu sur la vie et l'œuvre de Dabar en deux Aziz en deux tomes tome un tome deux jógewaat fa. def conseil et recommandation de Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh yoo xam ne moom ko je ci me traduire ko. Mm-hmm. moom éditer édité ko. Mm-hmm. ñu jógee fa en 2008 mu génnewaat ñaari livre Ben bi muy Zajrul club, mm-hmm. préfacé par euh, Cheikh Tidiane Gaye de Louga yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko. Euh, traduit par sama xarit Cheikh Tidiane Dabo hmm. ñu macha allah représentation bi ak commentaire yi hmm. euh, mu nek liguey bo xamni ni ah sa bu du bopam way ñu ko jang rafetlu nan hmm. tam xam nga ci dara amna ben enseignant bu nek lugo def na ñokay wax gor gi gën na àdduna yàlla ko yalla yeeram euh fatina turam mu woma ma ni ma mang lay wowe ci rewdu mamrawan mang lay wowe ci rewdu mamrawan mang surtout mamrawan la waaw mun ma maa ngi lay woowee ci ruudu maam rawaam. waaw mun ma leen dong moo tax ma woo la. Hmm. ma ne ko ah, ma. téere bii di zëjjul xulóob ma ne ko ah ma naka borom Sida ji Malick bëggoon ñu déggee ko mu ne ma noonu nga ko indee. que mun ma ci wàllu traduction bi. noonu nga ko indee mais ci wàllu yi noonu nga ko indee mun ma caam ma ne ko ah ma gis nga traduction bi sax bu ñu jéemoon bu baax waaye surtout commentaire yi. waaw ah, mu ma téere bi daal ci gàttal naka borom bëggoon ñu dégg ko daal noonu nga ko indee ma ne ko fa lay alhamdulilah. Hmm. ma booleeg moom ak bur dëgg parce que burdu bii ñu def teewoon bu weer euh, gàmmu jotee ñëpp dem teewoon gàmmu ji mm. ñu way burdu nga fettasu te xamoo sax lan la ñuy wax ci biir ak fan ban moo ko bind ak fan la ko bind ak lu tax mu bind ka mm. ak lu tax fan la jaar ba egsi fii ci Sénégal kan moo ñu koy jàng bare na mm. waaye nag yaakaar naa ne kenn ëpp ci cër si daaj mari te bu gàmmu jotee ñëpp xam ko te benn mbir mu doy waar bu ci nekk euh, Haj Mansour boo xoolee Mouhamadul Boucheyri diggante bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu at li leen séparé li leen séparé ci wàllu mhm. loolu moo séparé Mouhamadoul Bachir ak Seydi Hadji Malick ci wàllu at ah. ku nekk 642 ans est-ce que 642 ans moo séparé Bachir ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 642 mhm. ans moo séparé Bachir ak Seydi Hadji kon Seydi Hadji Malick amoon na cër ci burdi bi démb la tey di ñëw donc ma génnee yàlla defal ma suturam boole ak nuunu yë mhm. nuunu moom Alaaji moo ko bind Abada Burux mhm. ay classe du zaxaab yooyu moom xam mooy nuunu ko boole bi moo bind nuunu waaye mooy te moo bind Abada Burux classe moom kenn waxaale ko mhm. parce que classe Idrissa Diop nee na du classe xalaas la tuddul xalaas waaye xalaas la tudd <laughs> muslimu al islaamu nee na baatub lislaam ci boppam ko defee sëriñ si taxaw tem. président ak guvernement bi taxaw tem. président bi ak gouvernement am taxaw tem. assemblée bi taxaw tem. assemblée bi taxaw tem. yépp ñu teg ko ala siratul mustaqim. yépp ñu teg ko ci yoon yàlla wu mokk wi ne coow wuti ngërëmam. lépp lu ñu war a jàmmat ñu jaar ca yoon ko yoon war ko war a jàmmatee te bañ ko jàmmatee jikko